keep promoting. mag bi yegsi na paf ñu koy wax PAF ñu naan Pape Abdou ndax Pape Abdou Fall dafa def lu kenn musta def Pape Abdou dafa dem fu kenn musta dem dafay sargal koo xamante ni nii moo jël a sargal kooka la ñu ne Mamboy Diawo Mamboy Diawo mu Kolda Mamboy Diawo responsable politique APR mbokk yi Mamboy Diawo moom la ñu jël bis bi def ko delloo njukkal président Macky Sall mbokk yi Pape Abdou Fall def na lu musta am sargal rek a a sargal waaye ñi nga boole la kenn musta boole mbokk jël bu jàmbaaru wrestling académie boole ko ak ki nga xamante mooy Siteu bu tarkindaa bi mbokk yi ñaari la Pape Abdou boole kii nga xamante ni nii daa bëre ba équipe nationale olympique woolu ko ne ko ñu sa xam-xam boole ko ak xale nga xamante kuy moroomam faxas na ci kanamam kookal la ñu ne Siteu tarkindaa bi mbokk yi Pape Abdou lu rëñ ci bis ba mbokk yi dina ci laalaay ak rawaan bu bu xam sa cosaan moo ci daje DMX 2 bu Ramdaan bokk yi ndax yéen ngeen ni Petit bu Rock Énergie ndaanaan bi moom moo fay daje ak Candela bu Bawol mbooloo Bekaay bu Saa Ñambu dina fa laale ak Pape Mama numéro 2 Njaga Saar waaye Njaay Laax mu Lam Saar dina fa daje ak 5 tonnes mi nga xamante moo xëppoo gaalaaj gi ci digg rond Sandaga bi mbokk yi Forza bu Balla Gaye dina fa daje ak ki nga mooy Bébé ak bu écurie Tivaouane mbokk yi bisu la bu neexee Abdou Fall la banque agricole du Sénégal moom moo ko ci bis Agricash jàppale na bi Jojo Mobile seen autozone SDF ak soko su mbokk ñi ñooy sponsor yi jàppale Pa Abdou la 5 Pa Abdou Fall la mujj neex ji yaa sargal maam booy jaawoo dootoo ko dolli de dana mel ni tukk sa bënn saañ ba réer foo sànni mbatt dana toj ndax ki nga sargal ak ñi nga boole ku leen boole ci bis def lu kenn mës ta di nga am lu kenn mës jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar amaan mbégte ak contentement bu rëy tey ji bi ñu teew fii ci géejawaay amoo kat seet si fi nga xam ne mooy Fils de Balla ginnaaw combat ma góor bi combat bi taxawee xam naa ne tey ci loolu la ñuy taxaw waxtaan ci ak moom parce que mu ngi jóge ci général Malika nga gis macha allah sorti yi fi amoon yëpp ci diggante ma général Malika lañ ko doon laaj tey nag ñu fekk si ko fi ay xaritam ay doomu ndeyam fii ci lavage albasir fii ci amokat ci sorti géej bi nga xam ne boo fi ñëwee macha allah sa oto bu taxoon wala sa oto bu tilimee wala sa moto wala lépp lu mu mën di doon loo bëgg a setal wala tapi wala mbaaji loo bëgg a setal rek incha allah boo fi ñëwee dinañ la ko defaral ba mu ne ner macha allah ba dara dootu ci tilim tey dañoo fas yéene jël si ndaanaan bi waxtaan ak moom si biir làmb moom Fils de Balla la lion de Guédiawaye mais le petit lion la maa lay siyaare. waaw Moranta maa lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si bi sant samay ñaari waajur bu baax a baax di sant sama papa bu baax ak sama di sant tamit sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel njabootu sëñ Moussa Nawel yëpp maa leen sant bu baax a baax ñoom sëñ Moussa yéen sëñ Abo sëñ Xaadim ñoom ñëpp maa leen di bu baax a baax tamit di bëggee tamit waa amoo 456 yëpp ak waa Géejawaay ah, di bëggee tamit waa place bi nii waa Labas bi waa Albasir ñu ngi leen di siyaaru bu baax ku ci mel ni Landing moom moom kooku moom mention spéciale day sonn ci man lu ne lay def ci man ak papi sama mag bi borom yaas motor borom oto yu baax yi képp ku bugg oto rek na ñëw si moom ak location lavage lépp ah, ak lampe boro sama mag sama lépp sama xarit waaw di bëggee ñëpp ah di bëggee tamit sama xarit yi may àndal yëpp di leen bëggee ñoom ñëpp. man moom sama mag bi mooy sama xarit ana anamu ki nga àndaloon. kenn si Ismaïla Isma ah Gora. mu ngi fi Gora Fara Gora mu ngi fi. macha allah mais dañuy taxaw ci daj dëpp gi lan moo la dugal ci mbojjum góor a soog nga parcelle mu neex nga ne danga nga faa tegaat tànk parce que pare gu ma sax su ma jugee si góor a soog seen punkal bi laa jëm koy fexeel ba lii nga sumb mu yegg góor a soog góor a soog bokk da nga doon bëreel góor a soog ay affaire am nañ ko boor ba pare bilaay mafia bi gars yi tegee nañ ko boor dossier bi ba pare leneen rek la ñuy xaaraat mais combat bi suwaa bi la woon yow yaa bëgg na bëree moom wala moom wala promoteur non non promoteur bi moo moo choisir góor soog mais góor soog bokkoon sax sama plan dëgg naa bokkoon sama plan sax waaw tamit maa ngi ci remercier tamit sama papa Aziz Ndiaye bu baax a baax lépp moom la waaw lépp moom la tey bu ñu mënee tey ba mën a fay ko yéen a kase si làmb sax moom la ñu koy sant bu baax a baax ak sama matar matar sama ménagère maa ngi leen di sant bu baax a baax mais mention spéciale à moom moom aw ma fayam ak ñoom Masata baay Khalil Sora ñoom Badou ñoom ñëpp ma leen siyaar bu baax a baax waaw waaw a famille Alé Ndiaye bi. Balla yëg na combat. Balla Gaye waaw yëg na ñoom ñoo ma jëloo combat bi sax. ñoom ñoo ne ma jëlal combat bi. mu ne ko góor a soog leen ma jëlal ñoom ñëpp ñoom ñëpp loolu lañ ma wax. amul la moytuloo ci amul lenn lu may moytuloo. nee na xale nga doxal ci kaw comme ni ngay bëreeg seen morom école bu bëreeg moom la. Ah, dox ci kaw góor a soog ba wóor na. góor a soog méttiwul. am ci laa tàccu. am na tàccu sànni luy tàccu. tàccu daw songu te pakadam yooyu bu ma ko defee ñu dëpp kanam gi ci suuf si. daa am loo xam ci góor. bu baax sax am na yoo xam ne sax du ma la du ma waxagum sax balaa mu si jël ay matuwaayam ma am lu mu bëri lu ma xam si moom lu bëri ah, waaw. am na fu mu jaar nag am na lu mu def ci làmb de. lan la def ci làmb. moo daan euh, Jokkel. waaye ba AC Gulaar yooyu waay. Jokkel daan ay Jokkel daan ay Jamcëri Jamcëri moo gën a ës ci booy. wax ma ñu xew. moo daan Cobra. wax ma ñu xew laa wax. ay ñoom santaan ñi nga mobile de ñoom Cobra ñëpp da leen a. wax ma ñu xew mu doon laa wax. mais jam ceeri mënoo ko génn ci ñëpp. benn jam ceeri nga si mën a wax. Cobra ba tey mi ngi ci yoon bi. waaye waaye waxuma ñu xew ci nit xew ci année bi laa mbëri yu bëri yooyu laa bëgg nga mu jaar moom wax dëgg yàlla jaaragoo fa de jaaragoo li ma ñi ma adversaire yi ma bëreel ñoo gën a tàng foofu. xam naa ñi nga bëreel dinaa si ñëw mais Fils de Balla damaa bëgg ñu taxaw si Gora Sock est-ce que Gora Sock ëpp la doole. ëpp doole man may xale Gora Sock du ma ëpp doole <laughs> Gora Sock maa gën a fere xale gisoo keroog làmb ja maa ngi ñàkk tooy xepp moom mu mel ni ku ngemboo glace xaw ma lañ ko sotti. a ñàkk. ah moom loolu la constaté mais man yëngatu ma damay ñàkk man xale laa góor soo mënu ma bu doole. na lamb wax rek nga ci am moom loolu la wax moom envoyé naa la vidéo man kenn xamee wu ma wax man moom jëf lañ ma xamee wax dëgg ne yàlla man moom amateur yeeg Sénégal ñëpp xamee wu ñu ma wax man jëf laa xam man boo may wax sax dama nga wax dama koy baax wax ji ma moom wax wax ju bëri xamee wu ñu ma ko. Hmm, am na fu ngeen daa daje. te ma ba ngeen fa daan daje moom booloo la woon sax ci plan de carrière. waaw mi ngi noonu làmb mooy boole xam nga boobu musul jàpp ne sax dinañ bëri man ak moom te boobu ñun bokk entraînement chaque ma man moom lundi ba bokk entraînement moom dañ doon daje dina dina kenn moom ko ñëpp a fay daje. fi ma daa fekk. dina golf yi boobu dina golf boobu dina si amagul woon boobu dina golf lañ doon daje boobu maa ngi maa ngi bëri sama troisième combat xam nga quatrième ñu ñëw foofu ñu seq jàmm kap foore mais tey dem na ba làmb boole ñu loolu lañ koy jël tege ko fële buñ bëree ba pare après ñu continuer si bu ko bëggee. si bu ko bëggee nga duggoon parcelle daan fa oninga macha allah muy champion am lu mu def ci làmb mais ka nga daanoon ak ki nga jël wuute na trop. kenn si. oninga góor a soog. non oninga pare naa góor soog moo moom la ñuy wax. ñooñu amuñu leen lu ñu waxaat si moom bëri nañ daan leen ba pare te moo koy bëri moom yàgg hmm. góor amul fi du xeex amul fi. moom da góor a moo arrosé tey mu ñëw. góor a du xeex moom du ko def xam naa ne moom day sama tànk lay dal si moom ah. man xam naa ne moom daf may songu si moom xam naa ne moom daf may songu si xam loolu moo xam naa ko moom song moom daf koy day ñëw combat bi wax dëgg yàlla moom bu songee mu gaaw bu taxawee tamit mu gaaw moom du ko def man nag de xam nga gars yi moom bëri moom ku ci bëri fi ko loolu la ñuy wax de mais moom bu taxawee moom hmm. man moom kenn xamee moom arrière man attaqué rek comme bala Balla Gaye rek dox seen kaw balaa leen jàngal moo ñu jàngalool ñu équipe Balla Gaye kenn xamu ci arrière avancé xam bu ñuy daan bu ñuy daan sax lañu avancé. ok yaa ngi si ci treize ans mooy sama bii mooy quatorzième combat soog bi mooy quatorzième combat. ñaata victoire nga. allah ji am na solo kooku mooy Fils de Balla bi mu duggee si làmb yàggut nga gis digganteem ak Boy Sarr mu daan ko jël bu rëy nga gis digganteem ak Sarko Junior aussi tamit mu daan ko jël bu moo fi daan ki nga xam ne mooy mbay guy gi bu école de lutte Bada Dione moo fi daan ki nga xamante bi nii mooy Oninga moo fi daan Balla Gaye Senior moo fi daan ki nga xamante bi nii mooy euh, euh, nu mu tuddati waay gin bu yoof fële ca stade Iba Mar songale ba ci kaw dóor ci suuf moo fi daan ki nga xam ne mooy Wës Jàmbaar 5 juin 2016 premier grand combat Wës Jàmbaar fële ca stade Iba Mar waaye aussi tamit bu leen fàtte na moo fi daan tafaleer mujj fee daan ki nga xam ne mooy général Malika deux défaites yi mu am Calambeer bu Grand Médine moo ko daan keneen ki xam mooy Bour Sine bu Bawol moo ko daan mu nil ak booy say numéro 2 macha allah palmarès bi mel na ne ci palmarès yi la bokk de. ah waaw loolu kay mënu ko génne ci lamb. palmarès ci général Malika dof loolu kay mënu ko génne ci lamb palmarès boobu. mbër bëri na ba bàyyi bëri wala mbër bëri na ba egg fi mu egg amul victoire yooyu. waaw dañ koy sant yàlla rek te desaat na sax des na yeneen. des na yeneen yu si war a bokkaat sax yeneen mbër yu ñëwaat. Hmm. moom moo nekk sa kanam. moo ci bokk sax moom moom ci lim bi moom. dina yomb boole ko ci lim. bii moo gën a nar a yomb moom bii moo gën a nar a yomb si moom. moom moo gën a métti sa sax tey góor soog boo ko joxoon général fii ko daan man loolu leer na ma tey. góor boo ko tegaloon nga sànni leen sor ñoom ñaar ñii wala nga boole loon làmb rëpp du ko am ci général moom. de Balla lan moo tax boo amee combat ngay sous bi di ko. non dafa ma la woon du xeeb adversaire. man ko ñoom ñoo may xeeb mais man moom mosuma xeeb adversaire ñoom ñoo may bëre di bëri man di ma xeeb ñëpp jox leen ay favori man looloo ma jig sax moom moom a ko waaw garaawul man loolu loolu daf maa jig sax nee na moom bii moom moom boo ci génnee xaw ma ci génn wala doo ci génn dañ ciy génn si kàttanu yàlla incha dañ ciy génn bu baax dañuy jaar fi ñu doon jaar rek ay moromam fi ñu ko jaar dañ koy jaar rek macha allah mu am ku ma dee ñu ne géejawaay temps yi macha allah da ngeen a yor benn pël firdo boo xam ne nii moom <laughs> yoruñu dërëm géejawaay dañoo booloo rek nekk benn hmm. waaw boo yëpp nekk benn mag yi tamit soutenir ñu tamit hmm. waaw moo tax lu ñu song rek daan ko boobu ba léegi macha allah yàlla ñuy suturaal hmm. ñu bëri di daan. le 2 janvier le premier janvier loolu dina doy waar ci géejawaay. ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam yëpp si combat Balla Gaye bi ak si guy gi bi ñu ngi leen a ñaanal yàlla may leen daam ak Alioune Seye mi bëri dimanche semaine ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. macha allah est Alioune Seye Zos. Zos de moom. Alioune Seye Zos mag la day xaar day bàyyi Alioune Seye dem. daan seen mag alam daar daan guy gi yàgg a dugg. waaw léegi rakk ji rakk rakk jee paar rakk alam daar ñëw na nag. léegi rakk ji màgg na rakk ji màgg na da koy na bàyyi Alioune Seye rek comme ni day xaar. Mm. day xaar rek ba jamono neex bàyyi Alioune Seye dem. macha allah mm. lan ngay tàggoo ak waa Géejawaay. waaw di sant di sant tamit waa Géejawaay donc moom tey nu ñu mel nag waa Géejawaay la waaw di sant ñëpp di bëggee sama xarit yi ñu may àndal ñoom ñëpp ñoom Gora Pata gànna yéen bu diis Lat Abdou CFA Ndaama ñoom ñëpp xaari maar gars yi daal waa amu si bàyyi ma si kenn di bëggee tamit sama gars yi ñoom Landing Papi Lamp suñu waa kër yi tamit sama mag yi ku si mel ni ñoom Ismaïla ma leen siyaar bu baax ak sama mag bi nekk France Ali Ndiaye maa ngi koy bëggee bu baax tamit ak suñu waa kër sama mag bu jigéen bi sama rax yi ñoom mama ñoom ñëpp bàyyi ma di bëggee tamit sama douanier ku su mel ne ñoom Wilane ak Pierre tamit di am na sama benn douanier boo xam ne daf maa manqué bu baax Tafa waaw di ko ñaanal bu baax ak Oussou tamit ak seen waa kër ku su mel ne ñoom xalifa ñaa yaayam ak papaam ma leen siyaar ñoom ñëpp seen waa kër bu baax a baax bàyyiwuma kenn ah, siyaar ñëpp waaw di jàllal tamit Balla yàlla may ko ndam di bëggee tamit Kéba Kanté Kéba ne ko làmb ji sa làmb la waaw Kéba Kanté làmb sa làmb lépp loo ci mën def ko si waaw président Pathé tamit aw ma fayam moom moom lépp moom ñu gën a bëgg combat moom si la bokk président Pathé waaw. kon génn na général léegi mi ci góor. góorale moo xew si góor la ñuy jublu di bëggee tamit Aziz Ndiaye bu baax a baax tamit maa ngi koy sant bu baax sama papa sama lépp maa ngi koy sant bu baax ak Masata ñoom Baye ñoom ñëpp maa leen sant bu baax a baax bàyyiwuma kenn. ko. kab bi yéen nee nañ yéen a njëkk a jël kabam. kabam mu ngi suñu kër. yéen a njëkk a jël ba pare nag nekk foofu di bandi moom dégg nga ngeen jël kabu jàmbur. lamb kabu jàmbur bi ñaxam bi di dem ngeen. jël waaw déggoo ma moo xotti sama yëf ndox mi xotti sama fooy. yéen xanaa yéen moom lamb ji. non moomuñu lamb ji moom ma jël kaba. ana kab bi. am na kab kër ga moom kaba mu ngi suñu kër. góor a kaay jël si góor a kaay jël si kab bi bi nekk kër combat arafas arafas ak kii dafa mbër moom dawee bàyyi kab bi kab suñu kër rek mu ñëw jël si ko. bu bokkut ak dimanche bi bokkul ak dimanche bi beneen dimanche boobu Tapha Mbeur Ada Fass ba leen Pokola tëbalee kaba ba wax ko kaba ngi suñu ko ñëw jël si sama mag bi sama beneen mag bi ma àndoon moom la soloon keroog moo tax mu laxasu si kabu nag kabu di dem. ok ñoom ba ñoom franc bi ñuy am ak problème waa Kër Fala. waaw Fala fa la ko ba kabaa ngi suñu kër la. da ngaa xam ne dañuy da ngeen di bëri. xaw ma xam naa yàlla dogal na dañuy bëri rek ne ko kabu mu ñëw jël si ko <laughs> incha allah macha allah mi ngi noonu fils de Balla la bu école de lutte Balla Gaye ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di leen jox di daje ba beneen loo bëggoon wax. mais tamit ñu ngi siyaar tamit waa école de Balla bu baaxa a baax di ñaanal booy yu si am combat ñoom Ousmane Diop ñu ngi leen ñaanal ndam Youssou Ndour waaw ñoom ñëpp ah, yaa ma gën a xam maa leen di ñaanal nduur Ndour yàlla may ko ndam caatu Daara Fall ñoom Lamine Golo tamit seen course yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax xam mbës waa école ba lépp boo yëpp ah di sant tamit suñu gars yi ñuy jàppale fii ñoom sooy bu monsieur le maire Moussa Thiam Pape Cheikh ñu ngi leen bu baax a baax ah waaw di bëggee ñëpp ASC bi ah président bi maa ngi koy sant bu baax Diome waaw su waaye boo xeelee mu jàpp si maa ngi koy sant bu baax a baax président Diome. macha allah mi ngi noonu Fils de Balla la di leen jox dig daje ba beneen yoon ji bi incha allah ci seen lamb TV jërëjëf.